tey ji nag di ko ñaanal ci sant maam Cheikh Fall muy bisub tey bii di bisub àjjuma bi Serigne Mountakha jàpp jàppoon ko mu tegal borom bu baax ni moom si la ñu war a ñaanal si Cheikh Demba Fall ñaan gi nag mooy tey Baye Fall yëpp a ngi fi fu di Baye Fall rek ñëw nga ci ñaan gi ndax Baye jëm Modou Cheikh nekk maam Cheikh Ibrahima nekk fi maam Cheikh Ibrahima ndax fii la taxaw ci buñu këram koy gis waaye ñaanal maam Sera Fall fee nga xamante ne fa la nekk yal na fa ay mayam di yokkoo yokkoo yokkoo yokkoo yokk barke maam jëm Moussa Fall mu baax mi yal na ay mayam gën a yokk njabootam gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi sa maam Sera Fall tëj leen bopp rawatina si Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xamante ne moo nekk xalifa kullu njabootu maam Modou Moussa Fall maam Cheikh Ibra yàggal ko fi yokkal ko fi mu téye njaboot bi lool ba lépp lu mu naan a liggéeyal sa maam Sera Fall sa maam Cheikh Ibra bàyyi ko fi lool ci noonu la ñuy delloo ñaanal suñu am di Modou Mbendam mi nga xamante ne moo fi toog maam Sera Fall maam Cheikh Ibra bàyyi ko fi yàggal ko fi yàggal ko ci kanamu njabootam lépp bëgg ko liggéeyal maam Cheikh ko ci taw fii ñu ngi ziar na nag di ñaanal képp koo xam ne ci bis bi yàlla sa sama am Cheikh Rafal di ful say may di yokk say may di la defal taw fii ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla murid yëpp am jàmm barki maam Cheikh ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu di siyaar mbooleem internet yi ñuy bàyyi xel ci seen site bi di ASG production waaw tey nag ñu ñëwoon fii kër Serigne Cheikh Jëmm Fall euh, ci ñaan gi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo ko jàpp muy ajuma ji ñi ñaan loolu lépp luñ fi jàng ci xasida salaatu ala nabi ak turu yàlla euh, Serigne bi jottale ko sunu mam mam jëm fall te eh, sëriñ bi defal ko ay ngërëm yes pek saa su mam barke mam Sidi Fall Ibrahima kon ñu den nak sunu yaay boy soxna Assa mom mi nga xamanteni ni biir kër Serigne Cheikh jëm Fall gi la yaro eh, amana dund ak mom lu bare bare bari kon xamna dañ koy daldi di jox kàddu gi mu mu wax ñu lenn rek ci ci ci ci ci jëmm jooj ju tedd di di di di Serigne Cheikh jëm Fall kon yaay boy bismillah waaw bisimilah rahmaani rahiim auzu billaahi mina seytaan rajim ñoo ngi sant ñëpp ku fi ñëw yàlla nga delloo ak jàmm di sant mbooloo mépp sëñ kii dem nag yàlla dogal na bi mu toogee léegi fu at ak la waaye waxuma la koñ waxuma la paalin waaye mbàkke laa kenn kenn maru fi fu waaye mënti jóge doxandee mbaa nga wéré di wala amoo loo lekk di nga añ dinga nga reer di nga naan café fii ci koñ bi sax am na ñoo xamante ne ci tegeetu seen kër gone ndaw yi ñi nga xam ne dañ fee dëkk dëkk ak seen yaay ñu togg añ ak reer sax dañuy teg ñu leen ci ay ca murid jëliñ jëm maamam ju baax ja nag yàlla na ko teeru yàlla taas nga ci barkeem lu mu am liggéey na ko Cheikh Ibrahima ak sëñ Touba mm. lu mu am yóbbu na ko sëñ Touba keroog ba mu toogee dana du ma togg ceeb mm. du ma togg ceeb di ko yóbbu ko sëñ Touba ay ginaar lay togg ak i xar fii li fi nekk lépp lu mu indi mm. lu mu ko fi indi jox ko ngir Cheikh Ibrahima sëñ Touba def na ko ci ba jël lu ko ëpp def ko ca mëgëy mi nga xam ne tamit moo fi nekk mu teg ko ci loxoom tamit yàqu dara waaw lu moo leen Cheikh liggéey na Cheikh Ibrahima liggéeyal sëñ Cheikh Jëmb Fall yàqu ci dara taxaw na ko taxawaay bu mat sëkk ñu ñaan daal yàlla bàyyi fii ñu fi bàyyi njaboot gi soxna yi ak sëñ Cheikh jëmbu ndaw mi nga xam ne moo di taawam keroog ba mu serem sol la ko sëñ Ibrahima joxoon ba nëgëni ak sëñ Cheikh toora def ñu ngi a ñëpp ku lim juum waaye sëñ bi daal li ma mën a xam mooy kër gi moom a bàyyi ko àndoon jënd ko waaye toogaayam bi daal ñun daal dañuy jooy naqar daal lan ñu ngi jooy daal waaw ñu ngi jooy ndax sëñ bi moom wax dëgg yàlla xanaa dañ koy tënk waaye li xam ci moom lépp mënuñu Euh, ñuy ñuy laaj bu bu bu bu bu nee Serigne Cheikh Jëmm Fall. ana ana lu lu mën a jàpp ci moom. li mën a jàpp ci moom bari na. Mhm. ndax moom baayam ba muy dem. Mhm. da ko bàyyee magam di baax ja sëñ si Fall bàyyi góor. Mhm. mu nekk ak moom mu yebal ko ca jumaa ja. dégg naa moo daan xëy di nekk ca jumaa liggéey jumaa ja. di fa yendu di fa fanaan ba gërëm ko ba sëñ Fall gërëm ko. ba amoon na fa sax dégg naa demoon na ba amoon fa sax ab daan daan mais sëñ Fall da koo ñaanal. magam di magam yu baax yi ñaanal ko sëñ mu dem te Fall ñaanal ko waaw. mu nekk nit koo xam ne kenn mës sa xam li mu bëgg waaye fal àdduna loolu itam diis gan ndax mooy sa ibra ndax maam sa ibra nee na woon dinaa diisiwaat jamono te mooy seen say jëm faal man fu mu toll ni sëñ jërëjëf jërëjëf yaay booy kon sunu yaay maanaam euh, bis bi moo ko jàpp ak ak émotion bi kon xam naa dañuy daal di euh, yem foofu rek ah, dem ci yeneen mbokk taalibe bi ñu génne ay kàddu seede euh, jëm ci jëm ju tedd jooji Serigne Cheikh Fall jëm jërëjëf tey nag ñu dajeeg suñu baay Euh, Baye Cheikh Ndiaye waaw xasida euh, bu télévision Lamp Fall ñu daje moom fii kër Serigne Cheikh Jëmm Fall euh, li fi indi murid yëpp indi ko fi muy fàttaliku jëmm ju tedd jooj di Serigne Cheikh Fall jëm kon suñu bàyyi naa dañ koy daal di jox mu ñu woyal waxtaan wi ci jëmm ju tedd jooj di Serigne Cheikh Fall jëm sama baay bisimilah aouzu billahi min alsheytaani rajimi bismillahi arrahmani arrahimi اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياخ الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأغيار عدد نعم الله وإفضاله jërëjëfati Serigne توبا يا رام Cheikh شيخ ابراهيم Babul باب mbokk بوكي nuyu nañ leen di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan sunu borom subhanahu wa taala jéggalaa kon bu màgg boobu mboole nu jéggal mboolem sunu ay rëcc-rëcc bi barakati xudwatina maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina tey nag ñi ngi fii ci Mbàkke li nu indi umpatul kenn muy lan jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina jëm di Serigne Cheikh Jëmb Fall liggéeyal yàlla ba yàlla dogal ci coobareem mu dem fekki maamam ju baax ja yàlla na àjjana di këram ci barkeb Cheikh Modou Moustapha Fall baayam sëriñ Cheikh jëmb nag doonoon jàmbaar joo xam ne dégg naa léegi ci biir soxna su ne mbàkke ci boppam ñoo ñàkk ma ne ko déedéet àdduna ñoo ñàkk wala boog jullit ñi ñëpp ñoo ñàkk mm. ndax nit yàlla yow mi muy joxlanteel di joxanteeg yow loxo di la jox dara li mu lay jariñ mi ngi koy jariñ keneen kom joxanteelu loxo te te kenn yégu ko ndax nit yàlla ci kaw suuf dafay tinul doomu aadama yi di ñoddil doomu aadama yi njariñ lépp lu leen nar a rëcc ci njariñ mu téq ko jox leen waaye lépp lu nar a jëm si ci ñoom ci musiba mu fekk ko kon nitu yàlla loolu lay jariñ ci kaw suuf jëmm ju tedd ji di sëriñ Cheikh fal jëmb nag gis nga nitu yàlla dëgg-dëgg buy bàyyi buy bàyyi koo jamono fawu jamono yëg ko faw mu bàyyi jeexantal loolu mu donne ko ca maamam ja maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina bisub talaata la dem ci ginnaaw timis jëm guddi ba muy dem itam ngelaw na ngelaw lu rëy ànd ak taw bu sew mhm. Serigne Cheikh Fall jëmb kenn ku ne xam na ne mhm. keroog bi muy dem ngelaw na ngelaw lu rëy ànd ak taw itam mhm. mu doone ko ca maamam ji muy bisub talaata itam ñu dippee ko maamam ji maam Cheikh Ibrahima Fall moom itam euh, mu doon koo xam ne ni Cheikh Modou Moustapha Fall moo ko jur jàngal ko alxuraan ba Ibrahima kan ca njaareem moo ko jàngal alxuraan moo ko yar biñ ci jógee itam baayam yëkkati na ko ci jamonoy liggéeyub jumaa ji jox ko Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké làq لقنا نجرم بايم لقنا نجرم المامم ويا لقنا نجرم الشيخ محمد فاضل بكي waaye bul leen ni itam Serigne Touba ñaanaloon na ñi nga xam ne ñoo liggéey liggéey bu rëy bii ci jumaam ji te Serigne Cheikh Fall jëmb liggéey na liggéey bu rëy boobu ci jumaa ji kenn ku nekk dégg na kàddu Cheikh Abdoul Samad Mbacké yi muy fàttalee maanaam ba mu daanoo ca safa ba ba nit ñi ne wàcc na liggéey te sëñ Fall ñëw daagu daagoom mu jekk moom ak maraakisam yu zone daal di koy rukk ñett yoon ne ko Cheikh jógal waaye dangaa war a liggéeyal sa maam liggéey boobu ñëw na tey ba liggéeyal ko maamam ba tey mu feeru ji fële ca àjjana yal na àjjana di dëkkuwaayam waaye jërëjëf ñuy tuub day mel du dogguñu kàddu gi waaye maanaam ab ab laaj bu am solo daf ñoo dab ana lu man a jàngat ci ci ci jëf jooju Cheikh Mouhamadou Fadal defoon ci jëm ju tedd ji ji Serigne Cheikh Fall jëm waaw sëñ Fall moom xam nga sañ-sañam dafa rëy mhm. moom nee na eh, ilay xaada allahu ma lam yakuni wala yakun abadan li mum ki ne jël sëñ Touba di wax mhm. yàlla ma loo xam ne dootu ko may kenn mhm. eh, may na ma lu musta may kenn te dootu ko may kenn sëñ Fall ne loola man ci laa bokk li yàlla may sëñ Touba te dootu ko may kenn man ci laa bokk kon sëñ loolu ngëneeli yàlla la am sañ-sañ bu toll ne sunu borom mi nga xam ne mooy xejjal jaam bu ko soob xejjal ko ci boppam ba lu ko soob mu def te yàlla du ne ko déet loolu nag ku ko weddi demal seeti annal fadla bi yaddillahi yuhtihi man yasha ngëneel mi ngi ci loxo yàlla te du ko jox kudul ka ko ko soob kon Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke yàlla la sooboon mu jox ko ngëneel lu toll noonu ba lu ko soob def waaye ñi fekke woon euh, maanaam daanu googee sang bu baax bi daanu woon ca safo ya ñëpp nee nañ wàccoon na liggéey kon li ko delloo si mooy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ci sañ-sañ bu rëy ba delloo si ga nag la ko waral dafa wax ne Modou Moustapha Fall du ma jox ay doomam ñuy liggéeyal sëñ Touba kenn di ci ñàkk bakkanam kon loolu sañ-sañ la waaye jógal da ngaa war a liggéeyal sa maam ba ca kanam liggéey bii la ko doon wax waaye booba Serigne Touba la doon liggéeyal waaye liggéey bi mu liggéeyal maamam mooy fukki at ak juróom yi mu toog xalifa ndax xam nga leen ci sëñ Cheikh Fall jëmb loo xam ne cër boppam la te bokk ko kenn moy khalifa Cheikh ibrahim Fall bu liguel ñenti khalifa seigne Touba mom seul liguel na Cheikh salih mbake liguel na Cheikh mohammed al Amin Baara liguel na Cheikh Sidil mukhtar liguel na Cheikh mohammed al muntaqami yàlla fi yag tewi lool nak grâce à Serigne Cheikh Jëmb Fall muy gor di gaay di gaynde di garmi di koo xam ne nii li ñuy wax garmi gararal Serigne Cheikh Jëmb Fall moom la woon yal nañu ko yàlla doolee fayal maanaam jëf ju rëy ju ànd ki wax képp ku masaana gis jëfam bi muy door a wuutu sëñ Modou Aminta dafa laaj ndog yi fu ñu fu mu tolloon ndab yi fu mu daan nu mu toll woon ñu wax ko ko mu dal di koy ful ful gu jéggi dayo ba bi mu fiy jógee li mu doon yóbbu ci ndab ñëpp ko yéemoon moom avance rek la xamoon xamutoon dellu ginnaaw liggéey jamonoom yëpp ko liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall waaye nag fekki na buur bu màgg ba nga xam ne ni yàlla kenn du ko jam naa ni yàlla ma mu fekk dina ko teral ba mu xam ne sunu borom a matalebal ndax moom la doon liggéeyal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf jërëjëf jërëjëf Sambaay sant nañu bu baax a baax ci kàddu yi di ñaan lépp lu fi rot ci njëriñ euh, sunu borom dajale ko te jotal ñu ko jëmm ju tedd jooj jàmbaar jooj gaynde goog yi Serigne Cheikh Fall jëm yàlla na Serigne bi teeru ko barke maam Cheikh Ibrahima Fall jërë